démarche bu ñëw moo tax kenn tudd ko fi commencé nañ démb ba tey clôturé nañu waxtaanuñ ci affaire troisième mandat dañ koy bàyyi peuple yi ci seen bopp ak constitution nekk réew yooyu ñu seet nuñ koy doxalee. waaye nag attention ñun nee nañu démocratie la ñuy doxal démocratie la ñu digale démocratie la ñuy yenu pour jëmale ko ci kanam pour mu nekk jàmm ñëpp. ku ci nekk ñu respecter ce droit ak ses droits loolu la ñuy wax ah luñ ci mën a dugal nag su ki troisième mandat duggee na dugg bu ñëwee ñu seet naka lañ koy traité mais mais saisir guñu APF saisir